dañu fi dajale tey mooy sargal ñi nga xamante ni mooy vendeurs yi ak ñi yor espace PLR yi di liggéey ak Lonase waaye balaa ñuy sargal dañuy yëkkati ay kàddu ngërëm ak cant di leen féliciter ci seen taxawaay ci seen liggéey waaye di leen yeesalaat sunu njàppale di leen xamal ne ñu ngi seen gannaaw ci lépp loo xamante ni entreprise bi attan na ko ñu ngi leen di remercier ci objectif yi nga xamante ni daaw deux mille vingt deux atteindre nañ ko mu doon objectif yoo xam ne ba Lonase des Lonase ba léegi kenn mësu ko dégg ci entreprise bi loolu nag bu amee du DG bi du secrétaire général kese du coordinateur kese du directeur yi kese. waaye LONASE yëpp muy vendeur muy travailleur LONASE yëpp donc dañ leen ci njukkeel rawatina yéen ñi nga xamante ni yéen yéen ay cheville ouvrière yéen yéen ay bi man sama expérience ci administration li ma xabal ma jàng ci mooy institution boo gis da ngay bàyyi xel cheville ouvrière parce que cheville ouvrière bi dafay àgg foo xamante ni kilifa yi mënuñ fa àgg loolu dafa am solo moo tax ci bis bi occasion la pour ñun ñu sargal leen gërëm leen waaye aussi ñaax leen di leen xamal ni ñu ngi seen ginnaaw ci lépp lu nu mën loolu nag buñ ko waxee jàpp nañ ni war ngeen koo mën a gëm ndax lii ñuy wax naan ku la dig añ fekk mu jox la ndékki war ngaa gëm ay kàddoom ndax biñ fi ñëwee fekkoon nañ mutuelle bi nekk cinq millions ñu yóbbu ko quinze millions joxe nañ fi prêt wu millions pour vendeur lépp lu ñuy def ñu ngi leen ciy sóoraale daaw euh, yoonu Qatar bi tamit yóbbu nañ ñi nga xamante ni c'était en ce temps les meilleurs vendeurs dans le réseau euh, daaw. déggoon naa fi daaw li ma fi déggoon daaw ci revendication wala boog ci préoccupation dafa mel ni ren dégguma ko mooy affaire Covid mu ngi fi ba tey mais waaw mais mais mais il faut reconnaître quand même il faut reconnaître ngeen reconnaître quand ni am nay effort yoo xamante ni def nañ ko ci lépp lépp lépp dama leen di rassurer ngeen xam ni lépp loo xamante ni Lonase mën na ko def pour vendeurs yi loolu duñ leen ko xañ parce que maa ngi ñëw maa ngi ñëw lépp loo xamante ni Lonase mën na ko ngir jàppale leen ci liggéey bi duñ leen ko xañ ndax buñ leen ko xañee day mel ni suñu bopp lañ ko xañ ndax lépp lu leen bégal wala lépp loo xamante ni day jëmale kanam liggéey bi suñ ko defee contre entreprise bi lañ ko def waaye nag na fekk mu doon loo xamante ni entreprise bi àttan na ko ndax entreprise bi yéen da ngeen bokk ci ñi ko moom ndax bu yàlla tere bu amee problème yéen dangeen ngeen di am problème loolu na ngeen ci bàyyi xel ba mu bañ tax ngeen di bëgg wala am ay bëgg-bëgg yoo xamante ni entreprise bi du ko mën a soutenir loolu c'est extrêmement important ndax nag bi boo koy ratt kese te doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan bu faatoo dootoo am meew loolu day jar a bàyyi xel dégg naa fi euh, principal doléance bi nga xamante ni euh, monsieur Niang wax na ko muy 10 pour cent bi damay dama damay bëgg a fàttali rek ne ci Afrique amul benn loterie buy buy joxe 8 pour cent déjà EG mu may wax nag sax ci monde bi amul benn loterie buy joxe ay revendeur 8 pour cent bi ngeen am yéen ci monde bi amul 10 pour cent yi d'accord naa ci d'accord naa ci d'accord naa ci. d' accord naa d' accord naa ci bu ñu fi jógee ñu déglootu bu ñu fi jógee service yi SG monsieur Senghor ak yéen di ngeen fexe toog xool noo leen di encadrer loolu boo boo demee. dë da ngeen may madame ne nekkuñu assemblée générale da ngeen may may ma wax aussi euh, boo nee 10 pour cent pour vendeurs yi PLR da nga leen di aussi bàyyi xel. jàpp naa ne boo nee boo nee P boo nee 10 pour cent pour vendeurs yi donc PLR yi il faut nga yóbbu leen pour cent. waaye. loolu dafa nekk ci dafa nekk ci dynamique bi nga xamante ni moom la direction générale bi jël mooy képp kuy liggéey def résultat da nga war a am ci meññee meññeefu résultat yooyu nga def yokk boobu yokk bu ñuy encadré la waaye nag day jar liggéey du doon lekk 2 pour cent yoo xam ne dañ leen koy ñëw tegal ci table ji dafa am lu muy àndal. liggéey lay doon boo xamante ni bu ñu leen di jox 2 pour cent yokkuñ ko nii rek pour dem toog dafa am lu ñuy xaar ci yéen pour ngeen joxaat ni bu ko defee bu boobaa entreprise bi day mën a supporter loolu mais lu ñu soxla ci yéen boo ñu ko joxul 2 pour cent yooyu bu ñëwee ci entreprise bi dafay metti loolu euh, laa bëggoon préciser may wax di baamtu beneen point boo xamante ni point bu ma. bu ma ñor la te maa ngi gis muy ñëw waxoon naa ko daaw dégguma vendeurs yi fu ñu dajaloo def journée de réflexion walla ñu ne ma vendeurs yi daje nañu def ci ay proposition indi ci ay xalaat mooy li wóor te wóor mooy vous subissez aujourd'hui la forte concurrence du online te ni ma gisee chiffres yi di boo leen ajusté wul taxaw dëggal seen bopp yéen tamit mën na menacer seen liggéey parce que parieur bi moom day fu mu mën a parier rek na dana parier de moom bu gisee kees ko bu gisul kees ko dina parier donc euh, monsieur Niang monsieur Mbaye dafa jot yéen ngeen am réponse par rapport à ce fait qui est boo xamante ni dara mënu ko dindi dafa am war ngeen gën a taxaw ngeen waxtaan ngeen am ay plan d'action ngeen xool nag ngeen di résister par rapport ak loolu parce que dafay menacer seen métier li may wax yéen yéen a ko gën a xam il faut ngeen liggéey ci loolu il faut ngeen réfléchir ci xool naka ngeen di mën a améliorer loolu bu ko defee direction générale mën leen jàppale parce que nag euh, dafay nekk loo xamante ni taxawaay boo xam ne dangeen koy am pour protéger seen uti de travail loolu laa amoon lu may wax di feddali encore sama cant ak sama ngërëm di ñaan yàlla sunu partenaires yi fi jógee yàlla yërëm leen dara leen àjjana ñu yàgg fi ñun tamit di leen ñaanal asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di leen sant